طاعة ملكية حلى آدمي خلفة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلي baax a baax a baax la woon ci nun di sëriñ ci nun doon kilifa ci nun ñëw na fi tam pour jokk wala dem ak canaba waaye ñëw na fi tam pour xilaaf sëriñ bi tam xalifa bees bi tam mu dalal si ko jokk wala dem ak moom yooyu yëpp tam feeñ na ci biir waxtaanam ndax itam nag eh, ci kàddu yi nga xëy sëriñ bi yónni woon nañu ñi ko jeqee moom ginnaaw dalal ko ak won won ko ni ko daal ñëw bi ñu fi ñëw confirmation la ci yow bi daan ñëw ndax bëggam cana ba démb ak bëggam kër gi ak bëggam tariixa bi ak fonk sëriñ bi loolu rôle bu la waxee yàgg na koo joué ci kër gi firnde la ca rek àjjuma jum ñëwoon julli si kook noonu mobiliser gouvernement bi yëpp ànd ak télévision ak rajo àdduna bi yëpp di ko seetaan mu julli ak can sañ cala ba juma man ko loolu taalibe yi dencal na la ci mbégte ak cofeel goo xam ne toujours ñu ngi la ciy bàyyi xel ndax fu bi cana ba na ci àdduna bi yëpp rek mu ko doon seetaan te moom bu ñàkkul fayda soo bëggee kilifaam bëgg la soo fonkee kilifaam fonk la soo yëgee kilifaam mu yëg bokk na ci yi nga xëy nañ ko dara naan nañ ko hommage ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane ndax itam suñu kilifa la ne ñu wax ko ko fekkoon na canaba ñëpp di ko ci diini ak mbaax ak sellal waaye nag yokk na taalu ba ci xam-xamam Baye Cheikh Ahmed ku bëri xam-xam la ko daan waxee la ko daan fase la te fooram yëpp mooy li mu la nekk ci moom tam boo ñëwee kanamam da ngay fekk mu tàlli tàlli ñaa ngi rafet lool te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy yi ci bi ci gën a moo ay accueil nit ci kanam loolu ci kàddu yu ñëw yi nga xam ne sëñ bi wax na ko président ci la bokk ci ci topp itam wax na ko ni itam defaguñu benn déclaration pour kenn sampaguñu kenn waaye tam maa ngi lay jàpp seede ci ni talal sama kàddu gu jëkk ki ma wax gun mooy talal naa loxo ñëpp mooy ma rawatina njabootu ma Ahmad ak dëkk bi ak diine ji ak tarixa bi talal loxo ñëpp pour ñëpp ñëw ànd ak moom ñu liggéey liggéey bi nga xam ne moom moomu ko dafa ay wattu rek waaye moomu ko waaye nag moo la ci kanam di wax ñu topp ginnaaw wala jàpp ne seede président wan ko ni ko ni ma tàllal loxo famille bi laa tàllal loxo tam Sénégal yëpp rawatina kër yi diine yi kër yi aada yi ba ci ba ci ba ci église ba sax pour ànd ak ñoom ci liggéey Sénégal fëtliwaat na ci biir itam xaritam ak président xamal ni ko naka naka jëkk sama xarit nga woon te booba nekkuma xarit nga di ma teral kon du ma fi nekk nag di baamtuwaat parce que ku wóor dañ ku wóor benn yoon mais du ma jaayante su dama lay xam daal engagé wu naa pour lépp loo day defal Sénégal yi ma ànd ceeg yow ndax itam yàlla moo tànn ma nekk xalifa nga nekk président ñu tolloo jamono kon jàppalante mënta ñàkk taxawante mënta ñàkk dimbalante mënta ñàkk kon sëriñ bi itam engagé wu ne wax naa ni ko dañ la jàppale lépp loo dégg tam te du noona te du noona muy wax bu baaxul wala jëf ji baaxul jógewul fi man jógewul canaba ndax miinewuñu loolu canaba sëñ bi sant na ko itam ci doom yi nga xam ne dana am te ñu bokk ci gouvernement bi mel ni Talla Diagne Mandiaye Kébé euh, Abdou Ngingue nu boot gi njaboot sëñ bi tam loolu bi sant na ko ci baax baax te loolu tam war am sëñ bi ci fin kii bi nag ñun en tant que njaboot wax nañ ko ni ko jaal sax kenn mënu ci wax doléance waaye fekk na jiitu moom mu jiitu ñu ci doléance yi wax ni engagé woon na pour lépp luñ fi nisoroon bàccee na ba bëggoon ko mbaa mu jaadu fi mi ngi ciy déglu sëriñ bëgg na ko defal sëriñ ma ne ko président nag jiitu ngeen sax ci suñuy wax ba xamatul lu ñuy wax waaye nag ñu ngi lay ñaan yow tam nga gungeel nu sëriñ bi ci xilaafa bi ndax day xilaafa gu bees dafa laaj sa jàpp ak sa taxaw ndax sëriñ bi lan la bëgg a liggéey dëkk bi lan la bëgg a liggéey diine ji lan la bëgg a liggéey tarixa bi dëkkin wi ak dëkkandoo lépp nag laaj nañ sa gunge ak sa jàpp ak sa taxawaay rawatin nag ma ne ko dana jub gàmm dana jub gàmm préfet ngi nii buñ CDD CRD CND ministre de l'intérieur yi ci ëpp dañuy dikk parce que du fa nekk ñu bëgg nga def sa loxo bu nga sëriñ bi boo gàmm gii ñuy jub di première gàmm di première gàmm sëriñ bi hmm? di première gàmm sëriñ bi sëriñ bi gis ci boppam baax taalib bi gis ci boppam dëkk bi gis ci boppam loolu tam dañ la koy wax fii ndax itam gise yomb kàddu yooyu daal bokk na ci liñ tënk président ba pare nag ñu éclairciser ko sëñ bi nag xam wan ko ba ci Ibrahim mooy kat xaman ko ni baayam 1894 maam Ahmad Ndaam 1894 la génn àdduna maam bàyyam jël xilaafa gi maam Talla Seck nekk fi premier xalifa Ahmad Ndaam réalisation yi mu njëkk def mooy toog jumaa ji 1907 1907 toog jumaa ji tabax kër gi dem ca la bokk saas ñaan ko buur ku ma si suñ ko mën loo tabax ko gor fa 40 kilomètres carré sëñ Assane fa la jóg mu toog ñu ne wuramaat yu gent na parce que wuramaat yu ñu ngi ko sanc 1830 date boobu ci la maam Ahmadou Ndaw judd mu gant mu gent fanweeri at kenn dëkkatu fa woon maam Talla moo jóge fii dem fanaan fa ñu wër wër xabru limaal maadi yi gisuñu ko mun nan tëri ba suba ñu tëddi ba suba am ma dem ci benn diggante di bàgg di wër jàgg mu ni sikkar leen ñu sikkar xabri bi toj ca bopp ba ba ca fin ba loolu c'était 1923 1923 la woon loolu mu tabax xabru ba tabax fa juma jëndal leen gaalu looca jënd leen ay yére di leen fayal lemp di jox dund at wërëmaat yi ñu toog ba jàgg ñun sëriñ Thiénaba daal jar nañ njukkal ñu jël yaay sëñ Abdoulaye muy Xadijatu Alfa mi nga xam ne maam Alfa maam Alfa Mamadou ko jur maam Alfa Cheikh Amadou ko jur Cheikh Amadou Liman Mari ñu ne nañ njukkali sëriñ Thiénaba ñu yëkkati yaayu sëñ Abdourahim andi ko fi njukkale ko sëriñ Thiénaba kon yaayu sëñ Abdourahim njukkalu sëriñ Thiénaba la woon njukkalu Fuuta ci sëriñ Thiénaba sëñ Saada ay jigéen bañ a dox ak bañ a alamaan moo nekkoon ci alamaan sax kon sëñ Abdourahim su demee ak sëñ xilaafa bi am nañ yaakaar ni ñu njukkale woon yaayam diine ji moom war na nekk njukkalu diine ji waaw diine ji yëgaat ci boppam taalibe bi gisaat ci boppam tarixa bi gisaat ci boppam maanaam ñu amaan beneen beneen taxawaay bu bees ba képp ku doon naw Thiénaba baa nga di ko yaakaar nga xam Thiénaba démb jamono si dama sek ala jàpp si daaw fi jóg seen Cheikh Tidiane si daaw fi jóg euh, si Abdoulaye Mbacke daaw fi jóg Baye Niass waajoon na fee ñëw euh, Alassane Seynou Tall daaw fi jóg président Senghor ñëw na fi ànd ak Mamadou Ba Keïta ñu teeroo ko fii te Thiénaba gaar nga xam seen i daama keroog alaaji ma ko fas la ko takkal mu yéeg ci kaw di ma maanaam ñëw boobu canaba yi anu amoon démb ampleur boobu ñëpp di ko seet fa lañ ëpp canaba waat maanaam ñu ci am yaakaar bi nag yaakaar yi ñu jëkk am mooy njabootu maam Ahmad Ndaa bi nga xëy ñoom la bokkal fañ tàllal gi mu leen tàllal loxo te nangul ko ko di ko fekk yaakaar na ni mbooloo mooy doole ak jamaaxatu rahmatu lañ wax mbooloo yaakaar na suñ ko jàppalee daal liñ bëgg ci canaba ak diine ak tarixa bi dinañ ko am te loolu fierté la Sénégal fierté daal leen mën a tënk ci nga xam waxtaan nañ ko ak président te nungul nanu ko bu baax itam nungul nanu ko bu baax itam waaw waaw ñu ngi sant itam soso yi nekk yëpp nag yéen ñëpp xameewuñu leen waaye itam yéen itam am ngeen cat ndax itam njaboot gi aju cana ba seen yaakaar ak seen écoute ak bëgg xam dafa bari te yéen yéen koy jël toxaluñ leen ko toxal leen ko bañ man cee jot xam ne ñoom dëkk ba ñu yaakaar kat dafa président demee tey nii la demee boo gisee sax ñu yéex a génn comme dugg leen ci biir foog ñu toog may leen dara lu ngeen mën a jox ñu suñu yéen dëpp kon ñu ngi leen di bëgg teen ñaanal fan gudd ak wér a wér ak sutura ci dara si naa rasulullah asalaamaaleykum wa xula aadamiyin xel fatun malakiyatun